li ñi nga xam ne da ngeen am yitte ci seetlu xam seen avenir moo xam seen suba ak seen tey ak yan sarax ngeen ci war a génne pour mu yombal seen mbir moo xam yow miy góor am loolu nga xamante ne que mooy néew kàttan maanaam impuissance sexuelle wala ngay sëy bëgg am doom te amuloo ko wala nga bëgg a ubbeeku defar sa yaram tàqaliko cat sa wërsëg gën a yomb jokkool ak soxna Ada seexu yàlla bi ci numéro yooyu ngeen seen bés boo jëkkoog moom aajo yëpp dina faju jërë jëf mbokku internet yu UBZ TV ñi ngi leen di nuyuwaat bu baax di leen jaar di wax ne namoon nanu leen ñi ngi leen di bégee bu baax yéen suñuy mbokku internet ñi ngi nuyoo di jaar Serigne Mountakha Mbacké Bassirou mu yàgg fi lool te wér euh, jóge nañu ci màgg màggalu Daaru Xuddoos gi di waaj màggalu Touba ah, yàlla nañu ci yàlla yóbbu mu ànd ak jàmm ak sutura ak tawféex ñi ngi leen di nuyu di leen jaar mbokk yi ñu dellusiwaat ak yéen tey seen émission sa tey suñu champion Grand Yoff la ñu indi bu nee Grand Yoff nag champion yi mbëri yàgg na fi xam ngeen leen bari na xale yu fi nekk yoo xam ne ci làmb ji ñi ngi wane seen bopp macha allah nekk ci yoon tey nag ñu ñëw ñëwuñu ci mbër waaye dañoo ñëw ci koo xam ne ñoo moom mbër yi benn lanu ndax papay mbër yi la nijaayi mbër yi la kilifay mbër yi la ñuy sori ñu jox ko mu nuyoo ak yéen mbokku internet yi ñu dugg ci. lay fay yàgg fi te wér di ñaanal sëriñ Mbaye Sy Mansour yal na yàlla sama borom yàggal jàmm ba muy nekk dara dul dara muy def téyër marché di ziar ñëpp nag di wax ne képp ku di murit yaakaar sëriñ Touba nañ ñaanal sëñ Mountakha mu yàgg fi màggalu Daaru Xuddus gii ñu jóge démb yàlla na yàlla sax. mbokk yi seen invité tey Djiby Samb la loolu mu wax ci màggal gi macha allah li mu wax ci DG Bouran ah, loolu dëgg la moom Grand Yoff lay tiitaroo euh, ni leen ko waxee ki ñu am tey mooy directeur technique bu écrit Grand Yoff mbooloo kañ kañ lan la fal loolu directeur technique. waaw saison bii passé nag dañ doon innové doon defaraat écrit bi ndax écrit Grand Yoff mbooloo dafa nekkoon écrit boo xam ne 2009 la judd. à l' époque bi mu juddoo 2009 benn président bu fi woon woon dem si yàlla ku ñuy wax Demba Diop mu nekkoon président écrit bi di ko ñaanal yàlla sama borom xaare ko àjjana dafa wàcc ab liggéey bi mu feebaree noonu ba jóge fi Paul Ndong ñëw nekk président écrit bi xale yi daal bi ñu demee ba xam ne ñi yor écrit bi arrangé wuñ leen ñu ne dañoo bëgg def assemblée général ren jàpp ko avant saison bi di tijji. suñu grand place su ñuy toog jumaa ji. fii mooy grand place bi bi ñëwee nañu grand dañoo bëgg pour taxawuñu boobu man amoon naa ngànt sax na leen wax dëgg si yàlla jamono ji ñu toll nii aw ma jot pour làmb ndax ay déception yu bari yoo xamante ne bi daal am naa ko ci ma ne mbirum làmb moom dama ko bëgg daal di teg ci suuf tal sama liggéey bi ak sama njaboot mais ñu ñaan ñu yéenay suñuy grand dimbal leen ñu def assemblée général sama kër la ma fekk tay ba ñu doon ay champion waaw bi ñu defee assemblée générale ren daal man lañ def directeur technique bu écrit bi xale yi tamit ay xale yu neex a nekkal wax dëgg si yàlla ay jàmbaar lañu di ci ñu am ci ay ndog-ndog di ñaan sama borom yàlla na fa yem ndax ñu ngi doon préparé mobile mu bëreeg Boursine bañ na combat bi tay la combat bi yàqu mais lamb jooju amoon nañ ci yàqin lim ci daj ci ay coono bu doon coono rek mooy fay bu bëreeg Boursine duñ taxaw. combat boobu la ni njëkkee ngeen préparé ko dem ba jour ji ñu ñu ne fomm nan euh, bi ngeen ko yëgee. waaw bi ñu ko yëgee man bi ñu ko yëgee ndax dimanche bi mu doon ndax man chaque weekend vendredi damay dem weekend samedi bi sama téléphone fooy déggantoo ma ak mobile benn yoon ci guddi gi dimanche ma julee fajar pare la départ ñëw bi ma ñëwee laa ko woo téléphone na ko la moral est bon mu ma très bon lépp jàmm mais affaire bi combat bi nee nañ bu police du ci am ma ne ko police moom bu amul ci làmb làmb du am ndax te taxi la bokk bu service d'ordre amul làmb ju du am contre Issa Dieng woo père euh, Kële euh, laaj leen kenn ku nekk di def ay investigation mais bi ma jotee Père Thierno ko la ma xamal ne lamb ji moom du am ca laa découragé ci laa dem këram nag ne ko lii ab sarax la suñu borom ko bëggee noonu nit ñiy feebar tëdd ci lalu hôpital ak seen i bakkan di wadd ñu ëpp doole làmb nañu waaj rek bu bu yoon jeexul waa su du jeex yàlla dimbali ñu tamit jëlee ko ak philosophie bu rafet nag ndax ñun defaluñu yàlla suñu borom lu tax jàngoro ji daale daluñu defaluñu yàlla lu tax ñiy wàcc àdduna ñi génn àdduna boolewuñ ci yàllaa ko dogalagul ci ñun. kon ñi nga xamante ne bi ñooy feebar ak ñiy génn àdduna suñu ay nawla lañ suñu ay moroomi jullit lañu dañ leen di masawu di jaal seen ay bokk boo gisee ñu aj làmb ji loolu la contexte yi ñu ko aje nag moo dul yoon mais war na. jàmm ñu continuer ko comme ni nga waxee waaye bu ñu ñëwee ci ikiri Grand Yoff mbooloo dafa bëri ay. million def ko ci làmb dem Amérique entraîné ñëw ba la jour si nga woo ko waxu ko doon. tey CNG il paraît am ji promoteurs yi moment bi bu tawee bu dul géej ngay entré di ngay contacté boo dee. xëy na làmb ji moom dina amaat ndax ñu ngi ciy waxtaan dégg nañ per Gasson Dia. nañ mu def benn sortie yëkkati ay kàddu jëmee ci yow. sa diggante ak ko waaw man seetaan naa vidéo bi bi mu jógee Espagne yor bu ñëwee na ma Père li muy wax na ma Père ñëw naa kat. di génn ci réseaux sociaux yi naan ma bi mu ñëwee woo na ma toog nañ man ak ñoom waxtaan nañ def na li ko war. fon na ma agsi naa ci jàmm numéro bii laa yor woo ma ci. dama koy booba làmb la yaakaar daa dem entraîné pour dafa benn un mois wala benn vingt jours pour ñëwaat mais bi mu demee pour avisage de toog fa trois ans pour man yoonu làmbam daa jeex te làmb lu ñu làmb lañ seqoon man ak moom loolu lañ doon dox bi yoonu làmbam jeexee te mu yaakaar ne lu ñu seqoon jeex na xam naa peut-être moo tax woowutuma téléphone man nag naqarlu ma ko métit lu ma ko ndax nit boo leen day ànd ndax man su fekkoon damaa sol sama dàll ñëw kër Zarko ne ko booy damaa bëgg ànd ak yow su toogee dégguma ko dina am lu ma métti mais Grand Yoff ni mu sollu moom Diallo la sant man Samb laa sant. suñu ay maam sox bokk juróom-ñaari maam sax bokkante wuñ ci dara. mu am yaakaar ci man romb ñëpp ñëw sama kër toog sama néeg fëgg ma ubbil ko mu toog ci romb bi. ne ma dama laa dénk sama bopp. may ànd ak yow ci làmb. jamono jooju man mii dama doon entraîné maa ngi woon écrit dóor dooraat ci ñoom sos di contact di mbapat ku ñuy wax manu production bu Bourgée wala xam na li may wax Grand Yoff ñii di seetaan site internet bi xam nañ may wax. manu production moo doon tëgg fi ay mbappa terrain gaal gi su ma musaa jóg di bëri ji sama buntu kër ba tey marché Grand Yoff nit ñi dañuy daw di ma topp su ma duggee bu ma tuusut làmb ja du neex bu ma bëriwul du neex maa leen ëppoon mbooloo ëppoon leen sañ-sañ bi dàq leen a bëri gën leen a saf xorom ba tey jii mais Zarko mu ñëw dénk ma boppam ma ne ñaari kuy mënuñoo bokkam balka la ma doon yor lépp dama koo jox topp ci ginnaam di ko jàppale te yàlla rek suñu borom tax loolu laa seexoon ak moom mais bu jëmee Europe toog fa ñetti at bi mu ñëwee président bi Alain Badara Kebe la woo ko numéro ji bi Samb laa soxla Badara Kebe woo ma ne ma booy bi ñëw na ma ne ko booy bi mu ne ma Zarko ma ne ko ah bon sa la may laaj na ko Zarko sama numéro la lay laaj yow ne waaw ma ko ah àdduna mën naa war kon. Badara Kebe jox ko sama numéro mu may envoyé message ci numéro Espagne vocal dama envoyé message vocal ma déglu vocal ñëw na ci numéro Espagne la ma envoyé vocal ma déglu vocal bi. reetaan bàyyi bàyyi ci biir mu ma vocal ne boo jotee sama vocal nga woo ma ñu waxtaan ma déglu ko ma ne ba tey kii du ma ko may sens di ko tontu naa bàyyi ci biir. deux jours trois jours ñu ñëw terrain entraînement mu ñëw nuyoo comme d'habitude mu nekk ci entraînement yi comme yu booy nekk ba fi nekk man ak moom booba Zarko man la man Djibi Samb Zarko la daa àndal ci làmb ku ma xam moom la ma xamee ci làmb moom laa daa àndal lépp sama loxo loolu jaar ba muy bëree mbapat. première kasem moom ak booy ba nekk équilibre Balla Gaye booy ñang numéro 2 30 000 ba combat bi mu bëreeg Modou Anta. yaa gën a de 30 000. ba bi muy mujjee bëreeg Modou Anta Modou Anta di ko daan muy dem Europe man moom ci làmb te avance bu mu mus a bëree maa waxaale làmb ja maa ko jël combat mag Modou Anta laa mus a waxaale ak combat mag Baye Ma Ndione bi taxaw laa mus a waxaale ci làmb. mais combat bu mus a bëre maa ko waxaale baaboo may dégg tamit mooy manager am man la promoteur di woo ma ne ko nangam waxtaan ceeg baabu baabu na ma lii jaadu na ma waxtaan ceeg moom mu déggoo ne ko dama jox baabu xaar. mais comme ni nga ko waxee en tant que sa doom euh, bi mu ñëwee yónnee la message mënoo ko woon a woo rek ngeen def retrouvaille waxtaan xam ne àdduna amul solo. no Zarko amul importance boobu ci man te duma ko may importance boobu mhm, amul li muy wax ne baayam daf ma ko dénk effectivement maa ngi ñaanal. nit ku baax la woon ku ñeme njaboot ku bëgg doom bëgg ay mbokkam amoon yéene ci doomam dafa amoon yéene ci doomam yàlla antuwul maa ngi koy ñaanal suñu borom bi fu mu tëdd yàlla ko yàlla xare àjjana ndax dénkaane googu muy wax man maa ko sàkko gis nga làmb ku ci amul ñaanug waajur toogal bul dem tekkil say ngemb nga toog làmb ku ci amul ñaanug waajur tekkil say ngemb Zarko bi muy bëre ci làmb ñu yàgg ci làmb ñëpp kenn ku ne xam ne bu toogaa ci tali bi maamam rek lay gërëm ci làmb maa ngi gërëm sama maam tout court ana ko booykaay mu ñëw mu ne ko ku am maam am nga nday am nga bàyyi wër sax ndey ko mais barke bàyyi ko yor soo toogee day ci tali bi del gërëm sa baay di gërëm sa ndey te désormais boo amatee avance combat sa avance ci sa loxo baay lay tege ndax amoon naa cër boobu ci moom lu ma ko wax du ci teg da koy def combat mag Sa Thiès ma jëli avance bi kër baabu woo ko téléphone foo ne mu ne maa ngi sama kër ma ko nañ daje sa kër papa ma woo papaam ne ma maa gën a oyof yaayam mm, tànkam dafa diis nañ daje kër yaayam ñu daje kër yaayam toog ma génn avance bi teg ci loxo pap na ko combat mag Sa Thiès moo tax avance baa ngi nii dama bëgg nga jël ci lu la soob te ñaanal ko keroog pap dafa téye xaalis bi di jooy di tuuri xéwal xel bi sotti guy fukki junni la ma ne ko pap dollil jëlal la soob jël fukki junni def ci poosam ma jox yaayam na ko ñaanal leen ko combat boobu pap fu ne dem na fi Koungheul ci ay mbokkam pour ñaanal doomam lamb jooju kër baayam la ngemboo ngembowul sax kër maamam kër papaam la ngemboo dem gis nga la xew ca lamb ja profitoo lambam ak yàkkamtee ko daan combat ba dafa paas yàggu dara pap daanu feebar tëdd sétéwoo talaata la ma woolu ca ngoon jibi jàllo rakam la ne woolu ma jibi sàmm jibi jàllo woo ma ne ma Pape nee na nga ñëw wuyu ko ma dem seete boo fekk ko mu wax ji sax neexul mu téye sama loxo na ma laa lay dénk dama bëgg nga jàppal ma alaaji moom alaaji la koy wax. waaw ma ne ko ñaanal ko yaay baayam boo ko ñaanalee bu laaxee sa ngërëm ñaanal ko dinañ ko dégg ñaanal ko mu ñëw dugg ci saal bi sukk ci suuf papaam ñaanal ko talaata la ko def àllarba ci 3 heures du matin ñoo doon pap dog na man ak Zarko ñoo dugg biir yoof ci biir bàmmeel dugal papaam dëj bi yëpp maa ko yor. ndénkaanam lu ma baayam ju defoon maa ngi ko doon doxee di ko doxee lu ma man di naqari ci àdduna dama ko doon teg ci suuf. voilà bëggoon a ñëw ndax li nga expliqué nii sax xaw ma ko woon bi ma naan la est-ce que comme sa doom la te bàyyam dénkoon na la ko nga xool kii nekk barsàq rek xam ne sa doom la. waaw non contexte yi léegi dafa xaw a changé. Ah. ndax Zarko magum jëmale lu mu def moo ko tey dara ñoro ko ci àdduna lu dul boppam comme la wax ne la gëm na la. comme wax na mi ngi lay topp ku dul boppam waxuloo la mun ne ci moom boppam rek la gëm boppam rek ko intéressé te dafa yor njaboot nag moom yor kër man mi damaa yor njaboot yor kër su ma xëyee damay dàqi lu may yóbbu sama kër moom it ci làmb ji mu yaakaar day xëy di dàqi lu mu yor sama kër mais bu ma négliger sama côté rek ngir topp ci moom bàyyi sama njaboot dina am loo xam ne day sooxee sama côté te man mii samay poos moom da ci dem wàkk Sëriñ Bamba donc ko ci def du doomu aadama ju ko yaakaar ci pour nga ma koy jox moom xam na loolu ci man diiraa ñuy ànd trente mille ba suñu jonni tey musuma koo yàqal musuma abusé wu ci moom wala mu am yaakaar ci moom na ko defal ma nangam moom xam na loolu ci man kon man dafa am loo xamante ne liggéey doo nga ma te bu liggéey jàmbur nag di koy def ak ni réew mi soppeekook léegi ni mu jaxasoo ak nit koo xam ne fa ngeen àndoon toog ñetti at lijjantiw la xamul ci loo nekk woowu la téléphone pour man sama diggante moom moom moo ko jeexal te man damay magum lëndëm ku ma làmbul daj ma damay làmbatu daj sama bopp saa su ne man du ma moroomu gone man dama dama dul moroomu gone te man dara foqul sama bët bi ku siiwa ku siiwa déeg ku mën a ku mën a di dara foqul sama bët man du topp ci ginnaaw kenn ku dul waa kër sëñ Bamba topp ma ci lenn nit barke yonente bi Modou laa gën a bokkal moom laa lépp mooy roi des arènes moom la yàlla dimbali tey bu ñu dajee dañuy toog xaw waxtaan jàppal bàyyil làmbam laay dem soutenir ko ndax looloo ma war làmbam bu jotee ma dem këram eh, wàcc dem esat dem ci géew lu ma xam ci luy maye ndam ma def ko ñaan ko pour yàlla may ko ndam même ko ba tey diituma ànd ak moom ci géewu làmb ndax dama jaboote léegi Grand Yoff ndax directeur technique bu ñu ko defee nga yor lu ma téeméeri mbër waroo féet ak mbër da ngaa war a jaboote ñëpp kenn ku ci ne la nga xam nga di ko ko wax la nga xam loo xam ne day lore nga di ko ko mais boo ci féeteeg mbër ak mbër làmb ni mu firee ñu ne daa féeteeg mbër mii bàyyi ñu da yàq écrit loolu moo waral bi muy ñëwaat daa fekk ñu fal ma euh, directeur technique écrit grand mbooloo loolu laay téye mais bu ma moomoon ndam mu nekk sama saa yu bëri ji ma jox ko su ma yoroon ndam moom mu nekk sama poste kuy bëri ñëw ci mën di ko jël si jarut muy ñëw saa yu bëri ma ko na ko demal bëri daan au moom ay division ay détails amuñu ay problème juste rek jot gi ma amoon laa amatul te la ma waroon def sama digganteeg moom ba ma sàmm lu bari def ko. kon ñëw gi mu wax ne ñëw na woo la gisante ngeen waxtaan ngeen loolu amul. non fan la ñuy gisanteeg fan la ma woowee Zarko woowu ma xam nga kañ la ma woo téléphone bi mu ñëwee équilibre ñu suspendre ko. amande ko cinq cent mille ne ko bala ngaa jot bordereau di defar sa licence di nga fay amande bi man ma ne Zarko bu bu fit bi. ma bàyyi directeur technique écrit bi damay bàyyi. président bi ba Badara Kebe ne non non nañ ko defaral licence pare mën na leen bu fayut man ma bàyyi. ñëpp na ko dañ la defal bordereau te fayoo Jibi Samb ne day bàyyi ci la ma woo ma ne ko sëñ bi mu naa ma ne ko comité directeur lañ toog ñu ne amaan nañ la téeméeri junni man du ma wax ci comité directeur génn ci biti di wax leneen lañ wax laay appliqué dañ la amaan fay ko soo ko fayul man du ma ju wax secrétaire général mu defal la bordereau te man maanaam secrétaire général defaral diw bal doro mu defaral ko ko nga am licence mais la temps nga fayoo du la ko du ma ko def ca la ma woo di ma ci loolu contexte boobu taxoon mu woo ndax booba licence a ko ñor ba mu xamee ne bu joxewul caution bu fayut du ko def mu dem lijjanti ji caution ne bu ma jotee sama avance joxe la ma ca ma woo ma ne ko du dal ca la ma gëj a woo ñëwul sama kër woowu di wax ak man mbirum ba mu jigee Espagne ak lam fa déedéet déedéet woowu ma looloo taxoon may woo te ba may wo maa ngi yor sama volant di dawal wuti sama kër bi may dugg Thiès ci appayage bi la may woo ba ma génn Thiès di dugg Tivaouane yëpp maa ngi wax ak moom téléphone takk ay casque di dawal di wax ak moom mais ñëwul sama kër waxut ak man ci problème lii wala laa déedéet ba doroo ko ñoroon pour mu am ko defar licence am renouveler licence am. defaral ngeen ko. defaral nañ ko ko dafa joxe caution dafa joxe caution ne bu jotee avance am joxe reliquat joxe. bu joxee bu jotee avance am dina jo bu war a bëre dina joxe liñ ko liñ ko amande bu ko deful écrit la ñor yor al récépissé dañuy bind lettre CNG ne ko kii dañoo am moom problème du bëreeg suñu tur écrit ndax daf ñu yoreel mbër mu man di doon man ñoom samay kàddu miin nañ ko ci man waxuma ci Zarko rek de ak mbër mu man di doon ci écrit bi la tant maa ngi directeur technique règlement intérieur bi ñu liyee ak mbër ci terrain bi boo ko respecté wul doo bëri turu écrit bi. est-ce que du gis ne da ngeen a moo tax nga taxawee position boobu. non non du question dañoo neexul moom xam na sama xam na moom xam na ma. man ndénkaane buñ ma dénkee mbir sama bakkan la may jaral ba muy nekk ci làmb ji di bëre xam na sama bakkan la ma doon jaral. signature contrat fu ne man ak moom da jar bu booy dee daw sax maay taxaw ci kanamam na ko taxawal bu nee bërit maa koy téye na ko taxawal bul songu kenn taxawal fii loolu laa doon dund ak moom. di ko encadré di ko teg ci yoon guddil naa ko ba bëccëgal naa ko barke alxuraan fu ne dugg nañ fa man ak moom lu ne def nañ autorité bu ma xam Grand Yoff yàlla ak moom la man du ma dem kenn di ko di sama soxla autorité bu ma toogub saalam di ko wax Zarko laa ko jàppale ko ba ba mu toogee trois ans gisuma ko amul autorité bu ne ma jibi sax mos naa dugg sama saal wala moo gis ma man la may liggéey laay dundee du ma dem ci kenn naan ko dimbali ma wala defal ma lii amul mbokk yi ni leen ko waxee directeur technique bu Ikiri Grand Yoff mbooloo moom lañ leen indil tey dégg ngeen li mu wax ci écurie bi dégg ngeen mu wax ci digganteem ak euh, Zarko loolu leer na ndax bu Zarko defee sortie mm, moom dina génn démentir nun nag euh, bu nu sañoona comme ni ñu koy waxee rek mbër mu ñëw gisee ki nga xam ne papaam daf ko ko dénkoon ndax koo xam ne sa papa moo yëkkati sa loxo dénk la ko sa papa nekkatu fi moo fi sa papa ngeen jàmmoo àndaat ndax euh, jàpp naa ne bi ngeen di ànd nga koy guddil di ko bëccëgal xëy na wàññiwu ko dara kon loolu yaakaar naa yokkute lay doon ci moom mbër message boobu moom ñi ngi ko koy laase wax dëgg yàlla amuñu jaxasoo lool lool waaye ñun fu jàmm am rek la ñuy wut bu ñu sañoon ñëpp am jàmm diggante yëpp am jàmm moo tax xam naa ne du ñàkk dana ñëw ba ci yow moom ne la per maa juumoon baal baax ngeen continuer liggéey. loolu loolu wareefam la. waaw nga doomu adama doo rëy. doomu aadama du rëy. ndax damay dégg mu ne man def naa li ma war. te lëngoo dafa neex waaye koo ba dama koo bàyyi mu dem ak i loolu du mu xam sama diggante ak moom lëngoo dafa neex ci ñoo xam ne dañoo romb ci mbedd mi lëngoonte bu ñu demee ba ci sële bi yoon bi boo ma bàyyee ma jaar gauche nga jaar droite kenn ku ne jaar na yoonam ndax mais dañuy bi ñu ñëw dañoo lëngoo woon mais loolu du waxam ci ak man lëngoo dafa neex waaye koo bàyyi mu dem ak i mbaggam gone boo juumee da ngay xam ne damaa juum boo nekkee ci aw yoon da ngay xam ne nekk nga ci aw yoon dafa am loo xamante ne bi dama ko doon séq moom muy ci làmb muy lan ba jotee avance ñu jóg combat ma Modou boo déggee mën a la moom laa waxaalewul Espagne la toog di dégganteeg promoteur bi Assane Ndiaye di ko dox ba combat ba sotti ba dara desul lu du joxe avance promoteur ba ne Jibi Samb laa daa gis moom laa jox xaalis ma ne ko bu dee man nga jox xaalis du bëri ndax yëguma ti du ma yéen a waxaale seen komba As Cissé mi ngi may dégg mooy manager am actuellement bi bi ko baabu bàyyee As a ko yor As bi ñëw fekk ma ci grand bi Amadou ngi ne toog Abdou ngi nii waa atelier fii la ma fekk moom ak Carlos ñoo ànd dama avance baa ngi di mën a ko déet lamb joo leen dox waxaale ko te man yëguma ko loo may joxe avance jëlal avance bi bu sa booy bi ñëwee nga jox ko ko ngeen ànd dem bëre ji combat bi leen yàlla may jël man ko Zarko sama loxo dafa jeex ci moom sama àdduna sama mbokk ñëpp xam maak moom nay bàyyi di bëre ji combat di tàngal sama xol du ci jëlee lu ko neex. as ñaan ma ma jël ànd ak moom ne ko teel xaalis mu ànd ma ak Amadou si mi ñu ànd dem ba kër yi ba ci yaayam ci marché muy jaay yéeg kër gaw ñu làngal wàññi xaalis bi yëpp jox na ko am ñu wàcc ji bisi ba mu ñëwee di dox combat bi ñëw na du ñëw contact du ñëw entraînement ma na ko booy entraînement bi combat doo ñëw si mu naanoo daa am ci lu ma nekk combat bi doo ko dox mu génne cent mille franc cent mille te xam nga cent mille yooyu maître Ousmane Seye maître Ousmane Seye moom laa ànd man ak moom ak Issa Dieng kër maître Ousmane Seye na ko Zarko mi dañoo bëgg nga jàppale ko ci combat bi mu ne ma bu subaa ñëwal biro booba mi ngi ville bureau ma ànd ak Issa Dieng dem fa mu yëkkati xaalis may ko bi ma ñëw yëkkati xaalis bi jox ko mu yëkkati cent mille franc na ma am nañ ci dem Saalum dox ci combat ma ne ko cent mille mu naa mën a ko jox aada baaxum booba laa xam ne kii yoonu làmbam jeex na bëggatu ko. 100000 pour ngeen def ci combat bi. waaw ay gàllaaj ak yëpp. ma ko jox ko aada baaxum wan fekk ko kër ko yee mu yeewu nekk ci li mu nekk dem làmb ja ñu daan ko. dimanche lañ ko daan altine talaata àllarba mu delluwaat Espagne toog fa ñetti at déggante wuñu xaw ma ci lu mu nekk ma nekk ci la ma nekk toog di ko xaar bi ko daa ñëw fekk écrit bi ñu defaraat ay changement na ñëw topp ci ginnaaw écrit ak règlement intérieur bi mu fi fekk. ndax jox naa ko règlement intérieur ci école ba ci loxoom na ko am liiral jox naa mbër yëpp jox ko règlement intérieur bi liñ ci tënk na ci sukkandiku bu bëggee nekk ci écrit bi écrit bi kenn ëppale ko ci doomu Grand Yoff la fi la juddoo fi la yaayam juddoo fi la papaam juddoo kenn ëppale ko ci Grand Yoff mais écrit bi structure loo xamante ne bi dañ ko structuré jox ko ay nit ñu di ko doxal ñu nekk ci bopp ba règlement intérieur bi li mu tënk su bëggee nekk ci écrit bi ci lay topp bu ñu topp lu diggante nga waa écrit du neex Ah, mais est-ce que du mooy tête de file bi. non écrit bi tête de file ñu amu fi. mobile la nga fi di champion moom muy champion naan di fal di champion xale yu ndaw yi fi nekk bëgg a nekk ay champion saa yoo dugalee ci écrit mbër ne yaay tête de file ba écrit ba yàqu man lu may jiite wax naa leen ko. maa rek ñaaw laa def muy tëdd fil bi Issa bi mu nekk euh, directeur tey écurie bi benn booy bu ñëw Pape Excellence la ne woon yow benn booy bu ndaw yaay sama tëdd fil. tëdd fil yaa koy def sa bopp yaay doon champion di bëre di daan. yow yaay champion bi. mais toog naan man maay tëdd fil maay def li noonu amul ci fi. Mm-hmm. waaw comme ni ko waxee rek ñu ngi koy woowaat mu ñëw ngeen toog waxtaan euh, lan ngay tàggu ak mbokku internautes yi xëy na am na loo bëggoon a wax ci écrit bi wala seen diggante te laajuma la ko lan lay doon. non non sama diggante ak Zarko amul nee la bu ma amoon ndam. barke alxuraan saa yu bëre ma jox ko ko. mu dem bëre daan am ak moom problème. juste rek jibi buur daf ma woo ne ma dinaa la jël interview ndax booy bi li ma sa diggante moom dafa war a ma ne moom ñaawul. ndax bu romboon fii léegi di dawal moto bu ma séenee day taxaw wàcc moto bi ñëw jàddu nuyu ma dem bu yoree oto bu ma gisee day wàcc oto bi ñëw nuyu ma dem am naa cër boobu ci moom. mais amoon bu amatul dinañ xam ne diggante bi am na lu ci nekk. non am gi moo di. dafa dem Europe nekk ci la ko nekk ba ma nekk Sénégal nekk ci lu ma nekk mu ñëw Sénégal fekk ma ca la ma nekkoon ma nekk ca ba tey te la ma nekkoon ci jóg xam nga boo demee Europe dafa ñetti at yaa ngi ca la nga nekk ba nga ma fi bàyyi maa ngi ci li ma ne. bi nga ñëwaatee fekk ma ca la ma ne la ma ko bàyyi di topp kenn loolu la rek mais amuma ak moom problème te leneen li ma koy xelal moo di nit du sakk jëf xam nga tax nit du sakk jëf moom ak Modou Lo ànd nañ guddi ànd nañ bëccëg fu ne dem nañ fa su ñëwee fi écrit grand ma man maa ko fi indi man maa indi ci écrit bi combat am ak Sa Thiès Modou Lo ko indi. déggoo li ma la wax kon lu man di xew na moytu réseaux sociaux yi ñu koy dëkk ay micro muy tax wax di wax ci Modou barki dem bu daje naa moom Biros Doré Nord Foire ñu taxaw man ak moom mu naa ma waa sa booy bi problème lan mooy problème sama diggante ak moom. ndeysaan Modou Lo waaw lan sama problème sama diggante ak moom. ma ne ko non xaw ma mu ne ma mais man comprendre ma quoi ñu koy dëkk micro Modou lii Modou lii te man au temps boobu ak lan laa ko def. ma ne ko nii nga def bu ci tontu bu ci wax bàyyi ko ndax gis nga borom caq du xeexe borom baatu neen te duñu xuloo ndax li ñëpp daw ci làmb jeeloo ko yàlla dénk saa yu yëkkati sa kàddu da koy yëkkati ci loo xam ne ku ko dégg na gongo mais bu bul tontonte kenn koo xamante ne bii nii dalay suufeel na bàyyi ki muy attaqué li Balla Gaye wax barki démb ci micro rek ci association mbër yu ndaw yi bam cay tollu nekk mbër mu ndaw dafa xarul liggéey rey boppam liggéey liggéey ba àgg fi mu àgg tey nekk champion. Modou ba mu ca tollee noonu la def jëlul micro di traak Tafa Gueye jëlul micro di traak kenn Khadim Gadiaga nekkoon ci écrit ba nekk tëdd fil ñoom maîtrise ñoom dolf musu jël micro ay ñoom grand yaara musu jël micro di leen traak dafa topp ci seen ginnaaw te gis nga àdduna ku kenn du la topp. sëñ Muntaxa mi rek war naa yee ñu ci àdduna ku fi nekkal sëriñ Bamba su mi na mbaxana mi jël kaala gi takk ci ndigg li sukk ci say tànk di la tarbiyewu moom la fi yàlla teg mbër mu ndaw mu bëgg doon champion toppal ci kon mag ñi laaj leen sa xalaat ànd ak ñoom ba yàlla def la ko mag te nga fa teg seen tànk ba doon champion nga teg fa sa tànk mooy fonk say waajur comme ni ko Birahim Ndiaye di waxee bañ a wor fonk waajur bañ a wor tey entraîné di tëdd heure ku ko def bëgg doon champion yàlla mën na laa dimbali kaala gi nga bàyyi koo bàyyi nag mu ne ca bopp ba takk ko ci ndigg li ba mu jugee ci ndigg li dem ci bopp bi. souvent dinaa la laaj benn question ñu toj euh, yow mi jege mbër yi yàgg ak ñoom ñi ma gis ñuy def sorti ñëpp daan ànd ak ñoom am lu leen naqari ci ñoom lii nga réclamé la ñuy réclamé euh, lan mooy problème mbër. bi ma gënal moo ci nekk mais ñëpp a yem <laughs> nga yor mbër. nga joxoon ci diw na mbër mi moo ma gënal ci mbër yi waaye ñëpp doy na waar ñi ma gis ñuy wax ñëpp lii la ni kaas damaa ànd moom ba ci digg mu war ma wala damaa ànd ak moom nangam nangam. man nag dama position man ak gaa yi ci côté boobu. dama ci xaw a wuuteeg ñoom ndax man ki ma doon àndal. moo ñëw sàkku si ci man ma ànd ak moom. moom moo sol dalam ñëw sama kër la ñëw de. daje ci mbedd daje ci équipe bi sama kër la ñëw sàkku si pour ma ànd ak moom. Hmm. li jeexal sama digganteeg moom moo dem Europe toog fa ñetti at woowu ma téléphone lijjantiwu moom bi mu ñëwee fekk ma ci leneen ma bakkoog la mu nekk ma nekk ci li ma nekk loolu laa dund ak moom mais mbër ma dool la waxaat la nela te damaa bëgg lii nga kale ko ñëpp di ci déglu mbër bu bëgg a doon champion bàyyil wor fonk sa ndey sa baay di entraîner heure di tëdd heure te topp ñi la yilif ku dul toppe mbooloo du la topp gis nga Modou Lo mi bu jugee mbooloo mi koy topp Siteu bu jugee mbooloo mi koy topp dañoo toppe Ama Baldé bu jugee mbooloo mi koy topp daa topp bàyyam waa ko ñoom waru leen lu am da koy bokk ak ñoom xool si te geste yi def. Balla Gaye ko wax mu ne daa tabe Modou Lo man fekk naa ba tey mu jënd ay xari tabaski jox ko ñi mu staff écrit grand bu bu parcelle mboolu di jël alalam di def ci ñoom ama seen lu ne lay def ci ay ñooñu ay champion la ñu dañuy jël alal di ko def ci champion ma wax la mobile 2 mi nekk écrit grand mbooloo barke alxuraan barke alxuraan xaw ma kañ lay doon mais dinañ ko dégg ci làmb. bari na lu muy dox ci social. sëriñ Touba laa dinañ ko dégg ci làmb ndax baayam fekkewul njëriñam ci làmb mais ndeyam ji fi nekk ak jabaram ak njabootam seen kër ñoom lay nooya lu mu am sànni ko ci àll bi këram la koy def tabas gi passé damaa toog ba ci yàgg ba deux heures du matin mu sama téléphone sonné message ndax dama koy régler réveil pour may julli fajar mu solo message laalu ma ko bi ma jullee fajar ba pare jël téléphone bi gis si euh, orange mu ne cinquante mille ma ne waaw orange mu ne cinquante mille dañu ci numéro am bët set ay midi mu woo ma ne ma grand savant ma ne ko ne ma gis nga orange mu ne sa téléphone ma ne ko waaw ma ne ko lii la problème la mu ne ma non dama la ko jox rek pour tabaski mu ne ko mobile mu ne ma ne ko yow yàlla suturaal dama yoo xam nga yàlla dimbali na ma mu ne moomee daf deuxième femme laay takk tay ba mu jël otoom Fordo xam nga ne essence lay lakk mu jël ñii ñëpp waa waa fii ñu toog grand place bi ñëpp la jël jaar ak ñoom seeraas jënd leen dawal gu bari ñu ndekkee indi leen to tay ba yendu faak moon ak sama njaboot ba ngoon jot ñu toog ñu ne pare nañ nañ leen dem lu ñuy def mu ne leen xool leen lu rafet rek dem orange mu ne jël enveloppe def ci xaalis bu bari jox leen na leen joxe leen ko au nom de l'écurie te boo gisee ñun ñu ñëwaat ci écurie bi di jàppale écurie Grand Yoff mbooloo yàlla ak mooman moo ko dox. moom moom bëgg na bokkoo bëgg na booloo bëgg na bennoo moo bi waaw bu ko yàlla dimbalee mu wér dañ ko dégg ci làmb barke alxuraan ndax nangu naa toppee gis nga man mii lu ne laa koy wax gis nga su may jël exemple ci écurie ba ci moom laa koy jël su ñàkk jom ci moom laa koy jël lu may wax ci lu bon ci écurie bi ci nit ci moom laa koy jël te fa mu sëgg du fa sëgg gis nga su may wax lu tont su ma ñëwee taxaw danaan rukk ci suuf toog barke te loolu la ñuy soxla ci gone goo xamante ne bi dafa jël ay mag na leen damaa bëgg nga dimbali ma da ngay déglu joxe ay nopp nañu topp ñi leen mag seen association bi ñu def nag mbër yi ndaw yi contre mu ko mais li ma bëgg ci moom ndax dama koy seetaan ci réseaux sociaux yi dafa voyage bi ci guddi dafa dem États-Unis mais bu ñëwee dama koy woo ba mu ñëw ma ne ko solo sa daal nga dem seeti Gris Bordeaux seeti ñoom Balla Gaye ñoom Modou Lo nga président ndax ay mag lañu say kilifa lañ ci làmb fa ñu jaar jaaro fa la ñu nekk nekkoo ko demal nga jox leen bopp déglu leen ñu teg la ci axe nga woo say nit te bu ma ko waxee dina ko def lu ma ko wax na ko def ko ko def maa ngi leen di sant bu baax di leen ñaanal yàlla sama borom seen site bi nekk télé di ñaanalaat sëriñ Mountakha Bassirou sama borom gën ko fa yàggal sëriñ Babacar Sy Mansour maa ngi ñaanal sama borom ndax man dama bëgg lu rafet. seede yu rafet lay seede ci sëñ Mountakha. toog ci télé bi wax lu rafet sëñ Mansour sëñ Mountakha sëñ Mountakha ne déclaration démbam bi gërëmal ma ko mu taxaw gërëm ko di diggante Tiwaawan nag Touba na mu mel sama xol dafa sedd ndax man ma sañoon ñu bokk ñëpp dañuy ànd lu rafet rek laa bëgg te njiiti réew mi ñi ngi wane ak rafetaay muy sëñ Muntaxa ak sëñ Mbay Si Mansour ñoo ñoo yor réew mi te ñëw jiite réew mi te ñi ngi wane lu rafet kon ñun ñëpp nañu roy ci loolu kenn ku ci nekk ki nga tane dee ko dimbali di wax sa morom lu baax yéene sa morom jàmm mm-hmm. di wax également une fois mooy Zarko man awma ak moom problème nee naa la bu doon bëree ma am ndam dama koy yëkkati jox ko ne ko demal nga bëre ji. jot gi ma amoon ci moom. waaw laamatul. wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. ayca mbokk yi loolu leer na ni ma leen ko waxee ci bi ma koy présenté moom mooy Djiby Samb miin ngeen ko ci làmb ji di directeur technique bu Ikiri Grand Yoff mbooloo moom la ñu jël si woon tey ngir waxtaan ak moom ci Ikiri bi waxtaan ak moom ci digganteem ak Zarko dégg ngeen lim ci wax. wax ak moom ci làmb dégg ngeen li mu ci wax mbokk yi tey ji bi mooy seen champion ñu ngi ziar waa Touba yëpp nag di leen wax ne kontaan nañu màggal gi neex na macha allah ah waagaan ci caméra bi seen mbokk seen xarit mbay Diop boo leggee ñu xoolal leen beneen champion jërë ngeen jëf. cabinet médical seen voyance ak soxna aada seexu yàlla bi yéen yi nga xam ne da ngeen am yitte ci seetlu xam seen avenir moo xam seen suba. ak seen tey ak yan sarax ngeen ci war a pour mu yombal seen am loolu nga xamante ne que mooy néew kàttan maanaam impuissance sexuelle wala ngay sëy bëgg a am doom te amuloo ko wala nga bëgg a ubbeeku defar sa yaram tàqali ko cat sa wërsëg gën a yomb jokkool ak soxna Ada seexu yàlla bi ci numéro yooyu ngeen seen bés boo jëkkoog moom aajo yëpp dina faju